dolli góorgóor bu baax a baax. waa mbëkk mi. ne mbëkk mi. xale yi ni ñu koy waxee. xale ni ñu koy waxee. Barça mbaa Barça. Barça mbaa Barça. yàlla ngeen dem Barça. yàlla ngeen dem Barça. waaye bu leen demagum Barça. bu leen demagum Barça. Euh, yéen ay yaakaaru Sénégal yéen ay yaakaaru Sénégal. xale xale. mooy yaakaaru réew mooy yaakaaru réew. xale mooy jàng. xale mooy jàng. am ay diplôme am ay diplôme am. samp réew samp réew. mais yéen. waaye yéen su ngeen jaaree si mbëkk mi ngeen jaaree si mbëkk mi. yéen yëpp ngeen dee si géej yéen yëpp ngeen dee si géej. ay waa mag yi suñ jeexee. kon mag yi xale yi suñ jeexee. waa astafurlah xale yi suñ jeexee. xale yi suñ jeexee. ñun mag yi suñ demee jóge fi ñun mag yi suñ demee jóge fi. ndax kan mooy yore réew mi ngeen góorgóorlu ngeen delloo seen xel am am nekkul ne dëkku tubaab yi nekkul ne dëkku tubaab yi de am am nekkul sañ bambara nekkul sañ bambara am am nekkul Sibassor nekkul Sibassor nekkul Dakar nekkul Dakar mun nga nekk mun nga nekk ajak jak ajak jak ci xuntu eh, sànqaleñ ci xuntu sànqaleñ sa wërsëg sa wërsëg daf lay fekk foofa mais sa vie waaye sa vie ta dund sa dund nga sa dund nga jël ko nga jël ko teg ko ci xottu gerte teg ko ci xottu gerte ci mbëkk mi ci mbëkk mi ci géej gi ci géej na métti na naufrage bi passé fan yi mu ne naufrage bi passé fan yi fii Mbour fii Mbour ñu ngi leen di jaale ñu ngi leen di jaale yal na yàlla yërëm yal na yàlla yërëm yal na yàlla xare àjjana way jur yi ak waa kër seen i waa kër ak seen i waa kër yal na yàlla may xolu muñ yal na yàlla may xolu muñ yal na fi gëj yal na fi gëj kon ba tey état bi kon ba tey état bi loolu seen góorgóorlu loolu seen góorgóorlu la yéen a yore gendarme yéen a yore gendarme yéen a yore militaire yéen a yore police yéen a yore police yi am ngeen ay gaal am ngeen ay gaal am ngeen ay pexe aar géej gi aar géej gi ba xale yi mën a toog mën a toog ngeen uti leen liggéey ngeen utal leen liggéey jox leen ko jox leen ko. soo toogalee xale tamit. soo da nga koy jox da koy jox. lu muy lu muy lu muy suturloo. lu muy suturloo. mais soo ko gaaree nit ko gaaree. joxoo ko ko dara. am na mu gàccee. mu am bu mu gàccee. bu mu war a dog bu mu a ko defu ko. mooy waral ay agressé yu bëri loolu mooy waral agressé yu bëri. parce que doomu aadama. ndax doomu aadama. am am am am. dafa neex dafa neex. soo àndul ngor rek soo àndul eh, am na. Sanjuga am na. waa borom dëkk bi am na ñooñu samay xarit lañ mooy so ay xaritam la exemple foofu mooy exemple si ñoom ñooñu suñu amee ñooñu suñu amee Abdou Khader amul Abdou Khader amul su ma amul eh, eh, sa xaw ma savoir vivre lañ koy wax xaw ma soo amul ah. savoir vivre tuuti amoo xalaat bu rafet amul xalaat bu rafet nga gëm yàlla nga gëm yàlla doo mun a am dal doo mun a am dal nga jël sa paaka nga jël sa paaka nga taxaw si eh, yoon bi nga taxaw si yoon bi nga gis benn boroom dara. nga gis borom dara. nga dagg poosam nga su bañee su nga yóbbu ko àllaaxira. mais lii lu ko fi jar mu ne lii lu ko fi jar poste loolu suñ la téyee poste loolu suñ la téyee nga dem nga dem yow ndungu siin nga dem ndungu siin ay waa lii moo waral ne lii moo waral xale yi nañ leen jàppale xale yi nañ leen jàppale ñu am xëy ñu am xëy gannaaw loolu gannaaw loolu ay rey rey eh, reyante bi ne na reyante bi di nekk si réew mi di nekk si réew mi di nekk si àdduna bi di nekk si àdduna bi eh, yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bi metti na reyante rek reyante rek terante te reyante di di tër doomu aadama di tër doomu aadama comme xar comme xar di ko rey di ko rey téye doomu aadama di téye doomu aadama di ko jàmmate comme xaj mu dee mu dee mais pour lan ne lii pour lan lii pour lan lii pour lan nañ jaamu yàlla nañ jaamu yàlla ragal yàlla suñ ko defee wallaahi xool su leeree xool su leeree yenn kàccoor yi yàlla du ci dugal moom rayante gi métti na nañ ci góor ba tey état bi ñoo ci am pexe ñoo yore gendarme yi ñoo yore policier yi nañ ci góor góorgóorlu aywa ñu ngi ñaan di ñaan nawet bi nawet gi dugg nañ ci bisimilah rahmaan yal nañ ko gën a alhamdulilah rabil alamin <coughs> ay taw yu barkeel taw yu barkeel taw bu ànd ak eh, jàmm taw bu ànd ak jàmm ñu récolté ci lu bëri bu mu nekk su eh, nawet bu mujj bu mu nekk yàlla bu mu nekk suñ nawet bu mujj eh, béykat amul leneen amul leneen bu dul nawet kon nag état bi nañ joxe jiw nañ joxe jiw ñu liggéey suuf si jàmm am jàmm am dund am dund am. réew yi raw rek. réew yi raw. Eh, béy rek moo tax ñu. raw. kon nañu góorgóorlu kon ñu dolli góorgóorlu. kon nag eh, Sénégal. ne Sénégal. yàlla na fi yàlla def jàmm na fi yàlla def jàmm. jàmm ci la lépp xëy ci la lépp xëy. fitna yi nekk si yeneen réew yi fitna yi nekk si yeneen réew yi. yàlla nañ ci dégg doy yàlla nañ ci dégg doy yàlla bi mu fa nekk tamit mu fa nekk tamit yàlla ci yàlla teg loxo yàlla ci yàlla teg loxo. fitna yi métti na fitna yi métti na. Eh, Mali Mali. pays voisin la ñun pays voisin la. yi la pays frontière yi eh, lu fa xew jamono ji lu na métti na. Eh, ay islamiste ay islamiste. ay terroriste ay terroriste. di reyante di a jullit nga gën a jullit nga. di rey say moromu jullit Niger. muy Niger. muy Burkina muy Burkina. muy ñoom Tchad. muy Tchad. ku lim ku doo dajal fitna yaa ngi fu ci réew yi. fitna réew yi. kon réew yi. yal na ko yàlla dalal fitna yi fa nekk fitna yi yal na jeex. yal na jeex. waa bande Gaza. bande Gaza. Palestine. Palestine. mbokku yi mbokku jullit yi. yal na yàlla tinu. yal na yàlla tinu. yàlla tinu. yal na yàlla teg loxoom ci kaw. yal na yàlla ci kaw. yal na ko yàlla alak. Israël yal na ko yàlla toroxal yal na ko yàlla toroxal Israël yal na ko yàlla fitna yal na yàlla fitna yal na ko yàlla teg lu métti yal na ko yàlla teg lu métti yal na ko yàlla këpp ci kawam yàlla na mën na ko yal na ko yàlla yal def kon nag kon nag guddi gi sori na ak imaam moom ak imaam ñoo tardel gaay ñoo ngi jéggalu bu baax màggat màggataguñ. màggataguñ. ah mais mais yaa ngi waaye at yaa ngi dem ndànk-ndànk. yéen doo recevoir yéen doo recevoir. guddi gi tamit gi tamit. nga ñëw ay minuit nga ñëw ay minuit. Ah, ay une heure ay une heure. nga ñëw toog fi nga ñëw toog ah ba 5 eh, 5 heures 6 heures. ba 5 heures 6 heures. ah day métti de ah, at yaa ngi dem ndànk ndànk at ngi dem ndànk. njaboot ji njaboot gi ngeen nangul ko ngeen nangul leen ko. waaw eh, yaakaar na Modou Seck nuyu naa ko. Modou tamit ñu ngi koy nuyu Modou Seck tamit ñu ngi koy nuyu. Eh, di ko gërëm di ko gërëm. ak Pape bu Asamariko. ak Pape bu Asamariko. li ma sol nii li mu sol nii. moo ko jox moo ko ko jox. ak njabootu Sañ Bambara yëpp ak njabootu Sañ Bambara gi yëpp. Modou Seck Modou Seck. ak ay ak ay xaritam. sant nañ leen sant nañ leen. gërëm nañ leen gërëm nañ leen Modou Seck bi muy def si njaboot bi muy def si njaboot gi. gis nañ ko gis nañ ko. moo Seck Modou Seck. day jël eh, Dakar. day jóge dakaar ak ay ak ay mbooloom. ak mbooloom. ay nagam ak ay nagam. ñëw def lu nekk. ñëw def lu nekk fii kon Modou Seck. Eh, sant nañ sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf jërëjëf te bul wàccagum waar gaangoog eh, fi nga bëgg a yegg yàlla na nga fa yegg eh, Pape Coulibaly ne eh, Pape Coulibaly bu Asamarigo te mu nekk Gambie sant nañ gërëm nañ li ñu def si ñoom gis nañ ko rakkam bi Youssou sant nañ ko gërëm nañ ko ak a stafam Lamine Konaté ñoom Issa Doudou Alpha Sow ñoom ñëpp nag moom alaaj jànn jowaab saxo ñoom ñëpp moo trawaré saxabu jara sant nañ ñëpp ku lim doo dajal nga xam maa kulubali président sant ci kanam ndey saaxo sant nañ leen na Seydina Omar ah, li nga ko laaj danañ si def tuuti rek ay taalibe lañ ay taalibe lañ ay taalibe lañ waaye say maam liñ fi bàyyi eh, ba tey ñu ne ndox fu doon taa soo demee am tey soo fa demee dañ fa fekk tepp tepp ñun eh, yaa fi sës moo leen tax a falu ñun duñ dara waaye ñoom ay ay taalibe ay taalibe la déedéet wax ko rek ko rek ñoom ay taalibe wax ko rek jotali ko rek ay taalibe la ñun duñ ay dara <laughs> ñoom duñu dara kilifa yi ñoo leen bàyyee seeni seeni mbaaxantal maa ngi jéggalu wàllu nijaay mu ngi jéggalu wàllu nijaayam waa kulaar waa kulaar waa njaayeen waa njaayeen sama tukulóor sama tukulóor di eh, Mamadou Diallo leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm nañ gërëm nañ aywa Seydina Omar na Seydina Omar aywa ak sunu sama dëkku papa. mun naa dëkk wayjur bi. kii mun na nekk borom dëkk bi foofu. muy Sanju mun na nekk borom dëkk bi. di wendu muy wendu. moom moo ko fàttali ne imaam moo ko fàttali léegi. doomu aadama kese kese doomu aadama kese. munoo dem munoo dem. il faut nga am ñi la ñu lay jàppale foog nga am ñi lay jàppale. imaam ko fàttali léegi. waa waa wendu. sama dëkku papa. mooy dëkk wayjur bi. sama eh, eh, waa wendu. waa wendu. ñooy samay njaatigu papa. ñoo may njaatigu wayjur bi lañ. ñoo ko may suuf. ñoo ko may suuf. jox ko kër jox ko kër. jox ko ay tool jox ko ay tool. ba tey ñu ngi foofu. yëngu. ñii ñii. toog nii. kii toog nii. moom lañ àndaloon foofu. lañ àndaloon foofu. moo nekkoon jawrin bi foofu. moo nekkoon jawrin bi foofu. waa wendu. waa wendu. sant nañ. sant nañ. gërëm nañ gërëm nañ. gis nañ leen. gis nañ leen seen taxawaay seen taxawaay. seen doole seen doole. seen alal seen alal. Eh, yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay. yàlla na yàlla dimbale. képp ku jóge si yéen képp ku si yéen. yàlla na tekki yàlla na tekki. jigéen ñi jigéen ñi. Eh, góorgóorlu leen jigéen jigéen. sëy jigéen jigéen. Eh, noppil noppil. noppi naa eh, toogal toogal. toog naa doom boo jur doom ce que lañ koy wax toogal waaye toogal fi ma lijjanti ko ak sa papa. doom bi foo ko teg doom bi nga koy fekk de foofu nga koy fekkaat. ñana isigi ni ñana na ñana bo foy la dente foy la foy la de il faut la <laughs> fa bëgg a wax jigéen seyal jigéen góor du morom góor du morom sang la eh, góor tamit góor yërëm leen jigéen yërëm leen jigéen ñi góor tamit leen jigéen ñi ngeen fonk leen mooy leen cër góor boo gis góor boo gis fonkal boo gis jigéen moo ko jur fonkal boo gis jigéen moo nekk ci gannaaw tubaab bi dañ koy wax góor bu góor bu góor bu mag boo gis jigéen bu mag moo nekk si gannaaw kon jigéen seen taxawaay rafet na ci société bi ay garde corps am yi de lu dul gendarme yi eh, ñoom ay civil lañ waa saañ yi ak ñi ko wër sant na leen gërëm na leen am na ñu jëlee paas réew ba réew ñëw fii jàppale ko sant na leen gërëm na leen Seydina Omar na ba li nga laaj soo bindee fatiha ne soo bindee fatiha ndax fatiha na si faaw kuli seyin la ne Mawlana Cheikh Alpha moo ko doon wax fatiha dana defar lépp dana defar lépp dana jeexal feebar dana joxe alal dana joxe alal dana joxe wërsëg dana joxe dana tukkil àdduna dana tukkil fatiha dana yàq dana defar waaye bu leen yàq yàq baaxul yàlla nañ ci yàlla musal dana baax de. dana baax de. mais poos yi feesul. waaye poos yi feesul. Ah, jigéen ñi. na jigéen ñi dañ lay tàccu léegi léegi dañ lay tàccu léegi léegi. léegi léegi ñu tàccu la. léegi ñu tàccu la de. aywa dépasse su matul. dépasse su matul. borom kër dina doy waar de. borom kër day doy waar de. mais soo bindee Fatiha. waaw soo bindee Fatiha. nga yegg si yaakana bu yaakana sayin. nga àgg si yaakana bu yaakana sayin. nga taxrir ko. nga taxrir ko. ba 313. ba 313. mu nekk Jays. mu nekk Jays. ñetti téeméer ñett téeméer ak fukk ak fukk ak ñett ak ñett mu nekk badar mu nekk badar Seydina Mohamed Seydina Mohamed loolu la cartonné loolu la cartonné kéeféer yi limbu limbu limbu limbu garaaw ne limbu garaaw soo fa yeggee soo fa yeggee. mbaa su la neexee mbaa nga def ko nga def ko. adadul xalaayix adadul xalaayix yi. loolu du bind benn loolu du bind benn fan de. comme taalibe yi waaye comme taalibe yi. soo joxee ki njëgu soo guro. dinañ ko dinañ ko liggéey dinañ la ko liggéeyal. adadul xalaayix yi adadul xalaayix yi. 500 ñaata la 500. 5995 5995. mooy adadul xalaayix yi mooy adadul xalaayix yi. nga bind ko nga bind ko. ba mu jeex mu jeex soo paree soo paree yaakaar na bul yaakaar na yaakaar na ba mu jeex ba mu jeex nga jeexal nga jeexal aaya bi nga jeexal aaya eh, xejul ci benn alluwa ne xejul ci benn alluwa soo ko bindee soo ko ngay jël siwo da soo peinture am kubéer yi soo raxasee nga raxas lii nga wéer ko ci naaj naaj bi boobu woow boobu nga jël bi nga bind balaa ngay pare balaa ngay pare bii woow nga raxasaat ko ba mu nekk ba mu nekk adadul 313 313. di jëy si di jëy si. nga jeexal aaya bi nga jël benn kii euh, pël yi benn garab dinañ ko wax. pël yi dinañ wax benn garab. namaari namaari. yaakaar naa pël yi xam nañ ko. yaakaar naa pël yi xam nañ ko. namaari namaari. fii la nekkoon euh, man fii laa ko doon utee gannaaw gannaaw ngaawul. gannaaw ngaawul fii dex bi fi nekk. suñ diggante ak ak ak sañ pël. suñ diggante pël. namaari namaari pël yi ñoo koy wax loolu pël ñoo koy waxee loolu boo xam nga ñun pël yi moom xaalis rek ba <laughs> leen bàyyi ak ak seen <laughs> mais soo ko jëlee soo ko jëlee muy xas bi muy xas bi doom muy doom bi muy bant bi muy bant bi muy eh, xob muy xob bi mais eh, doom bi waaye doom bi moo gën a garaaw moo gën a garaaw soo ko ko bàyyee mu wow mu wow ba ni marron ba mel ni marron mu mu ko ci suuf ko ci suuf mu lonk ci kaw baa ci kaw nga dindi ko nga dindi ko ñëw eh, kii ko wol ko ñëw wol ko ko waa ngeen koy wol nga wol ko nga wol ko ba mu mel ni sunguf ba mu mel ni sunguf nga jël ko nga jël ko teg ko ci naaj teg ko ci naaj bi ba mu wow ba mu wow ba mu wow koŋ ba mu wow koŋ nga nga ko ba mu mel ni sunguf ba mu mel ni sunguf nga lay ko comme sunguf comme cere nga jël ko nga sotti ko ci saafara bi sungufu namaari moom sungufu eh, namaari pël yi ñoo koy wooye namaari wetu sañpol mu ngi wetu sañpol gi. man la ko doon wutee. moom foofu la ko doon wutee. parce que ku ñuy laaj dépense a am xaalis. ku ñuy laaj dépense nga war a am xaalis. li leen di wax nii. di wax nii. moom mii sama bopp. boppam da koy def saa su koy def saa su nekk. Ah, waaw xaalis su ñëwul du sotti de. xaalis su ñëwul du sotti de. nga xam ne si dara de. <laughs> ñu nga xam si dara. soo ko ci defee. soo ko ci defee. nga nga sangu ko. Eh, nga def ko. nga def ko. su fekkee lim bi. bu dee lim bi. dina sori dina sori. nga def ko ñett. nga def ko ñett. mbaa nga def ko neuf. mbaa nga def ko neuf. mbaa nga def ko benn. mbaa nga def ko benn. mbaa nga def ko sept. mbaa nga def ko sept. nga def ko treize. mbaa nga def ko treize. mbaa nga def ko quinze. nga def ko quinze. mbaa nga def ko dix-sept. mbaa nga def ko dix-sept. mbaa dix neuf. mbaa dix neuf. mbaa vingt et un. vingt trois. vingt cinq. vingt noonu lay demee. noonu lay doo du du ampère. du ampère. yaakaar am impair. yéen a jàng soo ko sàngee loolu. soo ko sàngee wallaahi. sa wërsëg sa wërsëg lay tegu soo ko sangee gis sa yaram balaa muy wow sa moo wow. wallaahi dina am jaamu yàlla gu ñëw dina am koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ. sëriñ bi la gëj naa fi lool géej naa fi lool. Eh, jaaroon naa fi nga defal ma ay ñaan nga bi nangu na moom fàtte na. de amul doomu aadama léegi. insaan dañuy yomb fàtte. waaye yàlla day tàggat. jaam mu ñëw ziare la génne lu rëy teg ko sa poos dépasse ne dépasse weer weer ñaari weer ñaari weer keneen su ñëwul sax keneen naan sa ndoxu glace eh, jaaxaan di raay sa kol di xaran rek borom kër su amul loolu waxtu julli su jotee nga jóg julli jaamu yàlla sa xel dal waaye poos su amul dara xel du dal de waxtu julli su jotee imaam su noddee nga ne imaam dafa am jot eh, sa dépasse daa mat tuddee ko courant daa mat waaw seel nag baa ngi ñëw ak facture man aw ma ko lu muy mel doo mën a yàlla de moom kër foog nga am xaalis doomu aadama sax ngor baax na ci ngor baax na ci dànk baax na ci soo ko amul nga sante ko yàlla nga soo ko amee tamit. waaw soo dafay defar dund. day defar dund. ne. Eh, wet gi. ak eh, baadoola ak baadoola dañoo takkaloo soo soo ñàkkee rek soo ñàkkee rek wet gi soo ñàkkee rek soo rek mooy wolof lu wax eh? mooy wolof lu ñuy wax nga ñànki mel ni gaynde mooy waral agresseur yi kon nag eh, doomu aadama kon doomu war a am xaalis saa su nekk soo lambee sa poos dafa am kese kese waaye soo lambee nga mel ni bambara dafa doy waar ne loolu doy waar. lii namaari waaye lii namaari bi. koo def sa wërsëg sa sa loxo sa loxo tegu. kon nag Seydina Omar lii mooy lii mooy. sëricey ren ngeen téye ko barke. ku ko def ku ko ñëw ku ko def alal ñëw ku ko ñëw. ku ko def ay millions ñëw soo yàggee ay milliar fekk la fa wal yàlla yàlla na ko def yàlla dina ko def caal xam ma moo ko ko jox Seydina Omar san san dunay maam la kon nag jël ko wax ji lu eh, rafet eh, yàlla la ak ay environnement ak ay rakam ñoom imaam lu ci a doy waar ngeen xam ne doomu aadama ji la eh, sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nañ yàlla dimbale yàlla nañ yàlla taxaw wërsëg bu yaatu bu ànd ak gudd fan bi zaahi rasulillah sallallahu wa sallam jërë ngeen jëf indi ko ñu indi ko jox ko suñ kilifa bi ñu jox ko kilifa gi sànjugu sànjugu mu mu jox ko mu jox ko ku mu koy ku mu koy jox ku koy jox mu séddale ko mu ko sérif yi sérif yi ngeen téye ko ndànk ndànk téye ko ndànk ndànk eh, eh, bu bu kenn bu kenn xeeb eh, am rek lu waay am rek am dërëm ku am nga nga joxe ku am junni ku am junni nga joxe nga joxe ku am ay fukki junni ku am fukki junni loo def ci sérif yi loo def ci sérif yi rek yàlla fay la ko loolu moo nekkoon kaddu bi loolu moo nekkoon wax leen ko ko dañoo fàtte dafa fàtte sérif yi nekkul ne sérif yi nekkul ne dañ leen dañ leen dañ leen kii dañ leen bàyyi côté dañ leen bàyyi côté xel xel bee fàttu xel bee fàttu incha allah maa ngi leen di jégalu bu baax maa ngi jégalu bu baax parce que ku ne Seydina Mohamed ku ne Seydina Mohamed yéen ay askanam yéen ay askanam kenn mu leen fàtte kenn mu leen fàtte guddi gi seen guddi la guddi gi seen guddi la jégalu bu baax a baax jégalu bu baax a baax incha allah taala sallallahu alayhi wa sallam